Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 93 sur l'évolution de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce mardi 2 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1339 tests 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 77 contacts suivis par nos services, 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 1, Popinguine 1, Grand F 1, Rufisque 1, Rebus 1, Parcelle Asseni 2, Touba 1, HLM 1, Almadi 1, Ziganchère 3 et Bignona 7. 96 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 en charge les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3836 cas ont été déclarés positifs, dont 1954 guéris, et donc 1838 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di jàllale fi nga xam ne fii la suñu dëkk Sénégal toll ci mbas mi ñu naan Covid 19. si bésu tey bii di talaata ñaari fan ci weeru juin 2020 jot nañ résultat yi. ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dellusi nañu ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëb liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen saytu ñaar fukki cas nag moom la ñuy wax transmission ñu jóge ci transmission communautaire mooy li ngeen dégg ñaan cas communautaire te tey jii ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Popenguine am na benn Grand Yoff am na benn Rufisque am na benn Tëngéej Rebeuss am na benn Parcelles yi am na ñaar Touba am na benn HLM fii ci Dakar am na benn Almadi am na benn Ziguinchor am na ñett Bignona am na juróom-ñaar juróom-ñeent fukk ak juróom-benn. ci ñi nga xamante ne ñoo tëddoon bi biñ leen saytoo seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji moo tax ñu ne ñoom wër nañu fukk ak ñeenti cas nag ba léegi ñu ngi tëdd ci fi nga xam ne moom lañuy wax sawetaas ci suñu l'hôpital yi mooy service de réanimation ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca loolu hôpital yi tey seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan dale ko 2 mars 2020 bi nga xamante ne ci la mbas mii covid 19 duggee fii ci senegal ñu ngi toll tey ci ñett junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn cas yi nga xamante ne ñoom dañoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom wër nañu ñeent fukk ak ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo des ci lalu hôpital yi fi mu ne ñu leen di faj ñu ngi tollu ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi doolee ci di ñaax askan wi ñu gën a ànd lakkaloo fa ñu dëkk ak ñëpp ñi nga xamante ne xamante nañu ñu di topp digteel yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mii di law ci suñu biir dëkk dina génn ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam